yéen ñi bëgg xibaar yi wóor fi ngeen ko mën a amee ci Info7 TV xibaar yi wér te wóor ne leen abonné te bës cloche bi Info7 dara du leen ëmb ci xibaar fii rek ngeen ko mën a amee ci Info7 Info7 leeru askan wi. jërë ngeen jëfati mbokk yi ñuy topp fii ci Info 7 TV kon dañuy ñëw tey wax ci wàllu société di réewum Sénégal ak ñi daal ni lay doxee ak euh, seetlu gi ñu am ni daal euh, lii di méccam jaay sa bopp moom dafi gën di law bu baax a baax a baax ndaxkat kat bu ñu xoolee ci diwaanu Ndakaaru rek lu tolloo cinquante personnes ñoo xam yi daal seen liggéey du lenn lu dul jaay seen bopp nemmeeku nañ ko fi te bu ñu xoolee ci biir ñooñu sax daañu ci gis sax mag ñoo xam am nañ tolloo juróom fukki at jëlee lu tolloo ko ñeenti junni ak juróom-benni téeméer ak ñaari téeméeri nit ñi nee nañu daal dañoo am jàngoro jooju di jàngoro yi sida kon it euh, jamono ji li wane ne métier mi mi ngi gën di yokku lu tolloo ñaari téeméeri nit ak fanweer ak benn 231 personnes jox nañ leen ay carte yoo xam ne leen may ñuy jaay seen bopp kon daal li ñu gën a gis daal métier mi moom nit ñi dañ ci gën di dugg bu baax a baax di métier jaay sa bopp ci ndiw euh, ci diiwaanu nag ay xayma la wax ne daal daal dinañ koy def rek eh, di wane daal yokkuteeg jaay sa bopp daal ci biir ndakaaru ni nga xam daal noonu lay lawee jërë ngeen jëf. Info 7